Nous sommes sur le village de Biryad, un village sur la région de Fatik, une région euh, où il y a des besoins énormes en eau, euh, puisque d'une part ce sont des villages assez reculés qui manquent de tout, que ce soit de l'eau ou d'électricité. En même temps, nous avons ici un sol euh, où il y a beaucoup de calcaire, de chlore, de sel, etc. Donc il y a très peu d'endroits où on trouve de l'eau douce et consommable. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que le puits là, il a été euh, implanté sur un endroit un peu loin des, maisons. Euh, à cause du fait que c'est euh, l'un des rares endroits où on peut avoir de l'eau assez douce. Alhamdulillah, nous remercions particulièrement notre frère, ce donateur qui a voulu faire une sadaqa pour son père, son parent qui a disparu. Qu'Allah accepte grandement cette sadaqa. Je remercie. Eh, ki nga xam ne moom la yàlla jël yal na yàlla ko arjana eh, ndax li yéen ci li ngeen taxaw dafa nekk loo xam ne moo mun a def avancement si ti dekk dekk bu amul ndox mun da am avancement te wax dëgg yàlla dañu manqué woon ndox moo tax teen bi buñ ko gisee nii dañ ci kontaan ba bon bu ngeen indee xiiwal bi mun nañ leen a sant bu baax ndax nekkoon nañ ci njaxaare ndax eh, kër yi dañ leen a toxal ne ñëw leen ngeen dëkk si fii ku nekk mu ñëw ñu jox ko parcelle am pour maanaam lu naatal dëkk bi rek moo tax nga jóg yàlla na yàlla jàppale jàppale ñu kontaan nañ bu baax kontaan nañ bu baax ki nga xam ne daal wax dëgg yàlla moo moo leen jógloo ngeen di wor lii eh, te yàlla jële ko yàlla na ñu fekk ko ci arjana bu gën a kawe yàlla na ñu fekk ci arjana bu gën a kawe na ko yàlla def ah jërë ngeen jëf jërë ngeen da ngeen ñu fekk ci coono boo xam ne ci manqué ndox lañ nekkoon lu nekk dañ nañ ko fi yàlla tax nag ngeen ñëw proposé ñu teen bi ñu ko vraiment ndox amu fi jigéen dañuy root ba sonn fu nekk da ngay jëpp ay 4 kilomètres cinq kilomètres door am ndox mais bi ñëwee nag proposé ñu ko vraiment dañu sant yàlla yàlla na yàlla def jàmm nag vraiment ñu ngi leen di kon kontaan bu baax a baax a baax ndax lii nga xam ne ku la ko defal ñaanal rek ndox ku la ko jox. kooku ki ñi la gëna bëgg ci lañ bokk kon nak ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sante li ngeen ñu defal nak yalla rek mo leen fe mën na fay fim toll ni ñun mbin yaad dañoo manké won dox lool way légui ten bi ñew may may si nañ ñu ma sha allah ten bi contane nañ ci bu baax ndax daawu doon nelaw ndax root guddigi dañuy jog jog ay 5 h du matin nek ci ten yi di root wa bayyi sa liggéey so fajaro yaa ngi ci teen gudd nu mu gudd ay yaa ngi bi fim tol ni ten bi na sha allah ñu ngi leen di gërëm di leen di sant waaw ten bi ma sha allah kontan nañ bu baax wa dekk bi yëpp a kontaan waaw wa dekk dëkk paa yeeg maire yek ñëpp a kontaan waaw sha allah suñ waccion fi pour sangu ci suñu liggey pour sangu rek problème la da ngay wacc 6 heures dem outi ndox pour do sango wala lo liggey ci kër gi waaye teen bi moom macha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax fi mu toll nii dañuy bees gerte heure bees gerte jot na ñu ngi ci àll bi di bees balaa ñuy wàcc 6 heures 7 heures ñu doog a wàcc 8 ñu xëy si waaw ñun moom liggéey rek lañ xam. ndax fu ñu nekk yooyu amoon coono bu rëy a rëy a rëy dañoo ñàkkoon ndox gis ngeen ci coono bi ñu nekk nii ñu ngi ci ñu ngi ci bees bi ñu ngi ci dem àll bi bëgg dem fu nekk amuñu woon ndox te jigéen moom ndox a ko yore. jigéen moom ndox ko yore dëkk bu ñàkkee ndox ñàkk nañ lépp waaye ku ñu may ndox yal na la yàlla jàppale yal na leen yàlla jàppale yokku dem ci kaw lu leen lu leen lu ko fi andi yal na lu ko raw nekk foofu kay def ngeen jaaraama sant nañ leen gërëm nañ leen su ndox mi pare toon bi dina wàññeeku bu baax ndax jigéen ndox la ndox moo ko yore ndox moo ndox moo nekk lépp ci dëkk am ngeen jaaraama yal na yàlla yokk ci kaw ci kanam ko ay bën déwén déwén déwén Sachez simplement que ça va profiter à un grand village avec aussi euh, des nouveaux lotissements qui sont implantés ici. Donc un potentiel de, consommation d'eau qui est assez, euh, assez important. Euh, que dire de plus sinon d'invoquer Allah pour qu'il bénisse vos biens, votre famille, qu'il fasse miséricorde à ses parents, disparu et qu'ils reversent l'ensemble des hasanats euh, récoltés ici sur leur compte, sur votre compte, et euh, qui me permettent de faire ensemble beaucoup plus de choses. khairan et